ndiggu Bassirou Diomaye Faye bu doxalul yoon mais. Mhm. ci ni ma ko gisee nii. ni nga ko gisee nii ban jàngat nga ci am kilifa la. Mhm. ku yaru la ku xam ni muy waxee la ku jàngaat ci diggante bii nii. Mhm. Bassirou Diomaye Faye. d'accord ma koy wax nag. réalité Sénégal bi daan naa ko wax Sonko ni ko na ko déglu. Zeyna yaa ngi may dégg. maa lay dégg bu baax. allo. maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg bu baax. yaa may dégg. maa ngi lay dégg waa. Bassirou Diomaye Faye te ubbi bëtam xam ni moom la yàlla fal. Sonko sañoon mooy nekk président Bassirou Diomaye du ko nekk Sonko doon have a choice. d'accord kon doxali doxalinu doxalinu yow Coura Macky mi nga xam ne yaa àndoon ak gouvernement yow yow yow Coura Macky yaa yow mi àndoon ak gouvernement bi weesu. li nga gisagum doxalinu président son excellence Bassirou Diomaye Faye appréciation bi nga ci def mooy doxalin bi baax na pour le moment. ni ma ko gisee mu wax. Mhm. xale bu am kilifa moo koy waxee. Mhm. won na ma yar. Mhm. ci li ma gis de li may wax na leer. ni ma ko gisee nii mu wax démb ak fan yi ni ma ko gisee mu toog. bàyyee ndekki du nelaw Zeyna. waaw. Mm-hmm. senegal du caaxaan bu nu fooyee Sénégal Sénégal. Mm-hmm. yanu ko du noonu Sénégal li mu àndal la. Mm-hmm. waa kër Bassirou Diomaye Faye nañu ko jël ñu yóbbu ko kër maamam yi ñu sang ko. ndax lan lu tax loolu. mi ngi toog di nelaw. lu tax loolu. dafay toog di nelaw senegal dafa diis. Sénégal dafa diis. doomu séeréer la. xam naa ci séeréer yi fulla eh Bassirou Diomaye Faye raayu ma sa ndigg yow bu jotee ma ma rëq la dama dama koy rëq yow. d'accord. mais gis naa ci moom yaru. Mhm. gis naa ci moom tey bu ko ko kenn yàqal. d'accord d'accord. te na na na jéem ay kàddoom. Mhm. dafa am benn wax bu may wetti bu sénégalais di wax wan ma sa xarit ma wax la sa jikkoom. Mhm. di nga ànd ak nit te la mooy def te doo ko def. d' accord d' accord nekk na lu am solo honorable Koura Macky moo apprécié euh, doxalinu Bassirou Diomaye fay son excellence monsieur le président euh, ci li nga xam ne moom gisagum na ko léegi mu doon lu inédit euh, ci ci foofu sax laay defee transition honorable député. Euh, mu mel ne nag gis nga ko tey ci actualité mooy décision bi nga xam ne jël nañu ko ngir arrêté lépp luy liggéey bu am ci foofu ca littoral bi mooy jëmee ci Corniche des Almadies ba foofu ca Malika ngir nag euh, jamono ji ñu saytu liggéey ba nu muy demee foofu euh, ban jàngat nga gis ci loole ak nga lu ñu war def. Hmm. ñëw yeggale ñoom mën nañ fee toog fii ba juróomi amuñu fun tabax amuñu nu def. la ma dégg Bassirou Diomaye fay wax ko démb na continuer ci loolu. président Macky Sall yi mu fi def yëpp. pour sénégalais yi lañ nañ ñëw yeggale continue continuer bi ñu doon wax moom la ñuy def by force. Hmm. te rupture de lañ woote ñoom. liggéey boobu Macky def ci corniche bi. Hmm. nañu ko ñëw yeggali moom Bassirou Diomaye fay na wax ak nawleem yi ne leen yeggali leen yii. Hmm. kon da kon kon kon d' accord travaux yi nga xam ne arrêté nañ ko ca corniche ba ndax honorable ñu ñu bari da ñu ñu bari dañu jàpp ni euh, joxin bi wala amin bi ñu amee ci ci ci bâtiment yu nekk foofee euh, dañu sax laal li nga xam ni moom moo di euh, fi nga xam ne moom la askan yëpp moom muy espace public waaye yemuñu ca ñu bari dañu jàpp ni tey xëy na ñu fi nekkoon yor ay ndombal tànk alal ji ñu jël ci alalu sénégalais ci lañ ko tabaxee ci loolu moo tax saytu bi mën a am Eh, Zeyna. waaw. yow ci média nga ne. Mm-hmm. Sénégalais yi dootuñu wax lenn man Coura Macky lu ma gëm. ah bon. dootuñu jiiñ kenn lu ma gëm. lu tax. Sénégalais gaaw na jiiñ sàcc. Sénégalais gaaw na laa jiiñ jaay dorog. Sénégalais gaaw na laa jiiñ caga. Mm-hmm. boo dee jigéen bu am jom. loolu nuy wax noonu dara amut ci nanu yeggali travaux yooyu gis nga bu ñu bëggee wax ci euh, euh, peuple beeg pauvre yeeg xaalis ba ngay bataa ñoo Macky Sall bàyyil na leen fa ay milliards mhm. bàyyil leen fa loo xam ne juróomi at yi yeggali rek la ñu a def mais est-ce que lim fa bàyyi doy na pour doxalinu réew mi d'autant plus que actuellement dañu gën a dañu gë dañu gën a bëgg a li nga xam ne moom mooy dund sénégalais yi il faut que nag euh, koppar gi takk loolu dund sénégalais yi mhm. jàmm la te bu desoon ci ñoom rek dina am jàmm mhm. sénégalais mu xëy togg sombeem lekk ko moo ko gënal di yem ci ñuy dee bés bu yàlla sàkk mhm. léegi nag yàlla jox na leen nguur gi président Macky Sall li mu fi teg pour ñun ñëpp la ak ñoom. Mhm. ndax ñun ñëpp ay sénégalais lan mhm. nanu yeggali seen yi ñuy def te ba wax cee kàcc gi te ci hôtel yooyu ñu nekk di taxawaalu. honorable amoo yow ca ca ca ba foofu noonu amoo fa ab bërëb ab bâtiment wala terrain amoo ko fa. aw ma dara lu ma état may ci suuf. Mhm. aw ma lenn lu ma état nee leen bés bu may convoqué. nañ ma convoqué ci làmmiñ wala ñu con ma ci pauvre. Hmm. laaj ma li pauvre yi di dundee ñu convoqué ma wax leen ko. Hmm. amul daray état lu ma ni lii man état ma ko jox. Hmm. du oto du terrain du kër du pajaas. d'accord. këpp ñu ma ay fel. damaa kilin ba mel ni asamaan sii ngay seen nii. moo tax ma am fitu wax ci Sénégal ba ma juddoo ba léegi. liggéey rek laay def. mais gisoo aussi saytu bi baax na de de en temps bu ñu la dénkee dara euh, ci at bi wala ci at ba ca topp nga saytu comme Kouramaki du muy saytoo doxalinu këram jàpp nga ni lii ñu def nii ngir saytu littoral bi arrêté travaux yëpp dafa bokk aussi ci tàmbaliwaat ci gestion wu rawatina nag ci suuf bi nga xam ne sénégalais moom la moom parce que litige foncier yi dégg nga ko bari na ci corniche ba. Euh, gisoon nga sax euh, ñenn ñoo xamante ni maire lañ waxoon nañ ci euh, ñu bari dénoncé nañ ko yenn sénégalais yi nga xam ne ñu ngi doon sport ci plage bi wala dem di fa sangu léegi amatuñu espace ndax lépp dañ ko mm-hmm. tabax gisoon ni tamit aussi mesure bu baax la pour ñu mën a saytu li nga xam ne moo xew foofu. waaw Zeyna. Mm-hmm. man dama bëgg lépp lu ñuy def rek ñu jaarale ko ci yoon. surtout. ñoom. Mm-hmm. waa impôt domaine nañ leen laaj fii ci Sénégal. Mm-hmm. ñoom waa impôt et domaine nañ leen laaj suufu Sénégal nan lañ ko defee kenn ku ci nekk gis nga fi mu dëkk mm-hmm. Mermoz la Bassirou Diomaye Faye dëkk ah. Ousmane Sonko kalapante yaa mi ngi dëkk ci kër góor gi mm-hmm. kenn ku ci nekk gis nga kër gi mu yor nañ leen laaj ñoom suufu Sénégal ñu génneel ñu suufu Sénégal nan lañ ko def dafay ji ñaate bi te liggéey kon jàpp nga ne saytu bi ci ñëpp la Sénégal ku suuf Sénégal ku fi jënd suuf da nga am kayit yu reer. nee naa la li ñu bëgg a def ay ministre Macky Sall yàlla du ci ànd. Mhm. parce que ñoo commencé ñoom ñoo njëkkee kalabante yaay na sénégalais wax loolu. Mhm. d'accord. fan la ñu kër u Mermoz. kan ngay laaj loolu son excellence. Ah, mais euh, Bassirou Diomaye Faye. Mhm. impôt domaine lay liggéeyee ñoom ñoo yor wàllu suuf yi. ku ci nekk fi nga dëkk yow dëkkoo fa yow naa man dëkkuma fa. Mm-hmm. ci man liggéeykat bu mag bi yow liggéeykat bu mag bi waaye ñoom nan lañu ñu def ba am suuf yooyu dañu bëgg ñu leeralal ñu ko ñun askan bi ñu xam. d'accord d'accord d'accord ci ci leeral googu sax laay jëm ndax gis nañ sotti yi nga xam ne euh, kii di Umar Sow. nekkoon ministre conseiller ci gouvernement Macky Sall def na ko rawatina nag ay accusation yi nga xam ne euh, def na ko ci Macky Sall euh, ak kii nga xam ne moo di Ahmed Suzanne Camara euh, sotti yooyu ba nga ko gisee ban taxawaay nga ci am ban jàngat nga ci am. Suzanne Camara seetaanuma ko. Mm-hmm. mais kii nu mu tuddati. Omar Sow. Omar Sow. Mm-hmm. jaam la. déedéet kay. slave. moom la ñuy wax slave. Mhm. su fekkee ni da nekk ci dëkk di taxawaalu. muy Gabon. Mhm. mu nekk fa di séddale ay kafe kan militaires yi bu ñu demee lebi. jox ko ko mu jaayal leen. président Macky Sall fekk ko fa indi ko Dakar def ko ministre conseil. teral ko xam nga dafa am ñoo xam ni du gëmuñu yàlla bëgguñu nguur gu jeex mhm. yàlla jeexal ko mu ne déedéet warut a jeex mhm. sénégalais sax xamoon ni dañuy day day day gàcc ndax la mu waxal Macky Sall dara du ci dëgg ah bon ma nga ca gàcceem toog nag mënatul génn hmm. kan moo mënatul génn ñemeetul génn bu génnee ma dama damay dama koy may yow dama koy assomé yow. Omar Sow li ma denc dafa ñemewul génn nga wax. suy génn ma di ko dóor bomb dafa am lu ma ko dencal loo xam ne bëggul àddina xam ko. mooy lan lan la wax ñu ko tey. na génn na génnaat wax Macky sàll leneen na génnaat. mais est-ce que jàppoon ni tamit ci démocratie la ñu nekk euh, d'autant plus moom. démocratie bokkul ak ki la say naa sénégalais nan bàyyi toroxal ñu leen di ku la ku leen dimbali. li ñu yan makki sàll yëpp ci àddina ak man nii may dox nii muy dox yàlla rek la. Mhm. sosal nañ ko façon ku ci àddina. yow Macky sàll mais perte nañu nguur gi nga génn ne tey laa koy wax lu bon Macky Sall dund naa sëy naa Macky Sall li mu dund. li ñu ko li ñu ko def Sénégal yàlla buñ ko def jomaay. mooy lan lan la ñu ko def parce que. Euh, jamono jamono jamono yële jamono yële euh, moom jomaay euh, fay wax na ni Macky Sall mi nga xam ni ci dernier moment nguuram dafa sentir ni dafa wét. Euh, ñu bari sax di junj ni que ñi ko jege wala ñi mu doon àndal dañu ko def ay trahison yu metti ci li nga xam ne moo di jeexintal nguuram est-ce que yow honorable Kouramaki mi nga xam ni jege nga ak euh, président mag son excellence la mi nga xam ne moo di Macky Sall ex Macky sàll est-ce que da ngay confirmer loolu. président Macky Sall du mës wéet. Mhm. parce que booy dund ak sunu borom bi. sa xol mooy fees ba ku la bàyyi du la def nii du la du la du la def dara. Mhm. président Macky li mu dund en tant que sénégalais tigi sax nag ku def loo xam ni man samay maam defuñu ko. Mhm. Macky Sall li mu defal Sénégal ma ni am na ñu ko fa jiitu te defuñu ko ñu di ko yàq lu ñaaw lu ne. kon li ñu ko mujjee ciiñ hmm. mooy mbirum dafay légaliser góor jigéen yi ba tey ma gis paradoo li génn ne li dara du ci dëgg ñoo ko sosoon ay sénégalais. foofu laa doon jëm sax mhm. foofu laa doon jëm ci sorte bi nga xam ne moom mhm. euh, euh, député Abdou Bara Dolly sa collègue euh, def na ko mhm. ci sunu ay confrères wax ne sax ci kàddu yi nga xam ne dañu ko daal yëkkati gis nga fan yi sorti yi nga xam ne ba ci Jamra wax na ci muy euh, son excellence Bassirou Diomaye fay ki mu dalaloon ñu bari jàpp nañu dafa bokk ca euh, ñale nale mooy lobby LGBT yi euh, mu mel ni moom baara mhm. dolli sax mu ngi doon ñaax ñoom ñu bañ a dugg ci sujet yooyee ba sax ci la defee ay révélation wax ni li ñu doon waxal Macky Sall am na ci loi bi bu yàgg ci wàllum criminalisation bu jigéen ñi dañuy tere lépp luy acte contre nature li ñu doon wax noonu dañ ko doon wax pour